asalaamaaleykum gars yi mu mel na yéen ñëpp ak may bind di ma laaj ci mariage bi foo wala vrai takk suuf faux wala vrai loolu duma ci wax parce que Wally Seck ku am dignité la ku am classe la Wally Seck jabaram ni mu rafetee muy soxna ay dara jabar bu dàq ci monde bi waxuma la Sénégal de monde bi tal na yeneen lu ay takk suuf lu ñàkk fayda Wally Seck du ci dox tuumaal nit ak waxal nit loo xamante ni defu ko yàgg na Sénégal léegi nag man li laa bëgg su ngeen bëggee lu wóor bu nit waxatee dee leen xaar aadama mu ñëw lu muy indi parce que dee leen déglu aadama di ko xaar vrai ou faux aadama da leen di wax lu leer indi leen ay raisonnement ju leer nañ Khalifa rappeur génn mu tuumaal Wally Seck ay takk suuf yaa ngi dégg plainte bi nag Wally Seck laa la wëcc de déedéet ay avocat ñoo xam ne lii du dëgg lii du yoon ñu teg ko ci yoon Wally Seck yoonam ne wu ci de dama bëgg mu clair ay avocat parce que tamit tuumal nit ki wax ak nit ki diko ko saaga guddeeg diko traiter n'importe quoi ah day jeex day arrêté wax naa leen ngeen Sénégal ngeen nek pour ñu tégal sen nday ba ngeen mandi dafa yombu walé ay man man dama tag dé man police mënul ci man cottu ndeyam ku déko né man rax sa nday peinture ko karole duma yeen Matar job suba tel dana len duggal ba ngeen dugg sen famé ci sonu tay ji amu ku ngeen di jappalé kan ngeen wo Abdoulaye job khas lan wo démb ba tey ñu ngi koy wax wàllu mais xaas man xam na ma man bu ma tàngee rek xam na ma bu baax déglu leen li ma wax xaas ñu doogu continuer allo xaas yaa ngi si jàmm maa ngi jàmm bu bi ak civil dégg naa yow la di woo di la ñaan wàllu sama yoon nekku ci déw ma sax xalifa moo woo wala civil sama yoon bu xoolal ku la woo dina la wax waxu Waly pour nga jàppale leen bu leen jàppale bu ci dugg ba ni saaga Waly Seck di toj day asu sàll ñoo ko tooñal seen bopp. sama waay nga sama xarit nga Wally Seck ku dal ci kawam nan toj lifal dayam amul baale. jeex na pare naa ci. ok Abdoulaye Diop sama xarit nga. Abdoulaye Diop xaas lii laa wax moom te defe naa dégg na ko ñoom ñaar daal xalifa rapport lañ jël si woon démb kat na ndeyam ci kaso bi fala fanaan six mille jël si nañ ko tey te day fanaan ok yéen ki ngeen di traité n'importe quoi mënoon ngeen am problème sax mu jàppale leen ndax fi ngeen fi ngeen jafandu baaxul Wally du n'importe qui ci réew mi de ku ko laal gis ko. waali ku dugg ci moom jooy yàgg naa leen ko wax faramaarin rek moo wóor salaam